mu nekk kii moo ko waral ma bëgg encore une fois ñu tàcc ko te dooleel ko bu baax a baax a baax ci jaloor bi nga xam ne liggéey na ko ci doomam yar ko fi mu ko war a yaree teg ko fi mu ko war a teg ba tey doomam am xel mu rafet. ana ñu teel ko fi mu réer. ah yaa koy waxal. Sall Binta Jaw Sall Binta Jaw Sall Diouf Maguette Diagne Maguette bàyyi ndey asu day am yaay Mbaye Diagne day dem kenn du ko ma yaani Alassane benn tóori Alassane loo am doom sa doom day dem kenn du ko tey incha ca kaw ca kanam rek mu faram mi ci leer nanta ko mi ci baylo kenn doon ko kër ju baax la am mu musal ko yërëm ko yii ko kii day dem doomam day mais lii faaw am ndax Mbaye Diagne doomu aslam la te mës ta bañ dara ci biir aslam te du ko mës a bañ te moom loolu la bëgg ci moom ndax loolu la ko yore du ko wax lenn muy def ci biir aslam mbay moo koy xalaatal boppam mais mi ngi ñaan yàlla. di ko ñaanal gudd fan ak wér ak sutura mbay su ko amee lépp lu ma mébét soxlawul ñu di ko wax ndax yàlla xam na kenn du répété ne da koy bàyyi ak yàlla fonk na ay magam fonk na ay wayjuram fonk képp ku mu bokkal tey fii mbay jaan yegg si du man nii de nee na rakkam di sës ci moom di mu bokkal ndey ak baay moo def Mbaye Diagne tey li mu doon tàccu leen loolu ku gërëmul nit nag doo gërëm yàlla mi ngi gërëm rakkam bi nga xam ne moo def Mbaye Diagne li mu doon nee na moo topp ci moom mu yar Mbaye Diagne fi ko war a yare ba ko yóbbu yóbbu ko fenn lu dul yar ko ko ci yoonu football mu déggal ko mu yaru te Mbaye Diagne mënoon naa dérailler waaye def ko jamais bu ko woowee ni ko mbay ci lan nga ne mu ne ko yaay xanaa bëgg a teral la rek mu ni ko wallaay di ma teral bu soobee yàlla te def na ko moom Mbaye Diagne te dina ko def di ko gën a def demee yàlla dina ko gën a yokku ci teraanga gi muy def ci moom ndax gëm na loolu mbay dafa doon dem joo xamee kenn du ko wax li muy def musu def benn yoon la ko mus a wax li muy def ba sa paree pare na ca lu mu war moom ak magam ji sëgg bu bokkoon doon day ak bàyyi muy anta en Tambay Diagne lu muy def defoog magam bu ko waxee du nyala jalla, ci la nekk bu di ko ñaanal yàlla di ñaanal yàlla ante ko ci di Mbaye Diagne duñ ko nee looy def te laajoo sa mag doo ko def magamji. lay def ba mu magam ji ndax looloo ko gën neex ndax ñoom ñaar moo leen bokk jur mu jàpp rakam yëpp ñëpp mbay ma yow ci kenn di def li maire bi bëgg moom way juróom yi taxaw du def mel lu dul ñaanal ko lépp lu mu teg loxoom mu am continuité ndax déggal na ko ni doom bi déggalee way jur li muy def asinem na ko gën a yokk ah lu yokk doyul lu fi def doyul école bi Mbaye Diagne defar ci école boobu la jàngee moom mooy juróom bii foofu la jàngee maître ay dem ñëw ni moo ko jàngal mu dugg Mbaye Diagne ñëw jàngee fa kon bu ko defaree loolu mbégteem la tàccuwaat leen loolu bu baax waay ak yeneen yu mbay di def fii ci aslam yeneen di ñëw yeneen di ñëw yeneen di ñëw incha allahu rabbi ne bu nu ko yaatalee lépp day yaatu Sénégal ñëpp xaj si Mbaye Diagne yaa ji ne mi ngi ñaanal ñëpp.